sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku téléspectateur u cana Thiénaba TV di jiital ci nuyo bi la xalif général Baye Serigne Assane sekk di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote euh, di jaar ci moom nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi euh, di leen ñaanal gudd fan ak wér waaye nuyu tamit euh, seeni njaboot nuyu Serigne Cheikhou Amadou Seck imam ratib bu Thiénaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi nuyu Serigne alsaan Niana sekk chef de village Euh, bu Thiénaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi ak euh, monsieur le maire premier magistrat de la commune euh, monsieur Babacar wadd di sous-préfet bu Thiénaba ci moom la ñuy jaarale nuyoo bi nag ba ci son excellence le président Macky Sall bu ko defee nuyoo bi nag dafay dajal waa réew mi waaye dajal waa bitim réew di am mbégte nag di ñëwaat ak yéen fii ci Thiénaba TV programme waajal gàmmu ci la Thiénaba TV nekk loolu moo tax Euh, muy dalal euh, ñi nga xamee ni ay responsable lañ euh, di wax rek jëm ci waajal programme mu gàmmu fii ci biir cana ba ginnaaw bi nga xamee ni macha allah jaar na fi yenn ci kilifa yi bu ko defee rek mu nekk mbégte tey nag ñu dalal Serigne Mouhamed Seck Mati moom mi nga xamee ni mooy coordonnateur ñëpp xam nañ ni bu gàmmu Thiénaba jubsee fukki fan yi nga xamee ni. bu weer wi feeñee rek euh, dinañ daje ca euh, pénc ci maam Ahmadou Daak daje ci grande mosquée bu Canaba euh, di fa jàng Ibnu Muhayib waaye di fa def taan def ay waxtaan ci ay thèmes macha allah mbooloo moomu nga xam ne nag macha allah ñu ngi ko tuddee mouvement pour la vivification du patrimoine islamique xam naa dinañ ñëw ci lan moo ko waral ak lu tax ñoom ñu dénk leen ko waaye Serigne Mohamed Seck tey moom la ñu dalal moom mi nga xam ne mooy coordonnateur programme boobu bu ko defee ci loolu la ñu war a waxtaanee nag jëm ci. Euh, Serigne Mohamed dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi ñu jàkkaar lool téléspectateurs yi bu ko defee rek euh, ñu ñëw nag ci leeral li nga xam ni moom moo ñu moo ñu tax a jóg ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Baye Ndiame Guèye. ñu mhm. ngi lay delloo nuyoo di la delloo ziar. ñu ngi lay delloo di jaare ci yow di nuyoo mbooleem ñi ñuy teewlu. Mhm. ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. Mhm. fi nga jaareel nuyoo bi rek foofu la foofu lañ koy jaarale ñun itam. Mm-hmm. te mooy nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi. Mm-hmm. ci ni ñu ngi ki jaare rek ki monopoliser parole bi ci côté boobu. Mm-hmm. di nuyu télé bi. di ñaan suñu borom yàlla yàgg yàlla yokk fi barke. amiin yaa ba liggéey bii nga xam ne moom moo ko chargé wu. te muy liggéey boo xam ne ñëpp la waroon. yàlla woyofal ko ci kawam. waaye yàlla na ci teraanga ju yaatu kii nag yoo xam ne dina tax ñu gën a mën a toog concentré wu liggéey ci bu baax a baax a baax amiin Baye Ndiame maa ngi lay delloo ziar di nuyu mboolem ñuy seetaan ñëpp macha allah mu nekk nuyoo bu am solo euh, xam naa sëriñ Mouhamed ñu ngi lay dalal mhm. euh, di war a waxtaane nag ci mhm. euh, gàmmu Canaba 2023 mhm. gàmmu Canaba nag bu ko waxee taalibe yi ak jullit yi dañuy jël seen nopp rek bàyyi ko Canaba xam naa di féliciter Canaba TV ci liggéey bi nga xam ne chaque année dina ko def ci waajal ga Euh, ci biir gàmmu gi mhm. muy programme mu mhm. avant pendant ak après euh, mhm. mu nekk loo xam ni euh, xam naa laaj bu njëkk bi ban appréciation la ci sëriñ Mouhamed ne am waaw après appréciation bi ma ciy def mooy lu ama am solo la ñun ñi dund Thiénaba avant Thiénaba TV dund Thiénaba après ah, bi Thiénaba TV amee ñun xam nañ li Thiénaba TV contribuer ci ci ci médiatiser gàmmu gi. ak mboolem activité boo xam ne Thiénaba da koy def. Mm-hmm. donc loolu moom laa junj léegi nii ci sama ci sama kii. Mm-hmm. service public la. Mm-hmm. ñoo xam dañ ko chargé wu. charge yëpp ñu jël ko. di ko def te ñun ñëpp lañ koy defal. bu bu woon dara sax mu nekk archive fu Thiénaba rek. dëgg la doy na sëkk. macha allah donc kon ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di ñaanal. teraanga ji daal lu mu yaatu lu mu yaatu rek. xeeb nañ. macha allah macha allah mu nekk lu am solo kon loolu euh, mu nekk euh, jaajëf dañuy wax ni <laughs> euh, nit moom bu dee liggéey seen ko ca waar wa ni ko jaajëf dina tax mu gën a sawar ah, noonu ñuy déggee say wax mm. te yëf itam ñoo ko bokk ndax macha allah yow mm. yenn saa yi nga nekk ñëw Thiénaba TV mm-hmm. defal ñu fi loo xam ni mm-hmm. ci wàllu xam-xam lu am mm. solo lay nekk kon jaajëf jooju jooju ñun ñoo koy bokkaat Serigne Mohamed ñëpp tàmm nañu bu gàmmu jubsee Euh, bu ñu ne euh, mu ngi waaja des weer feeñ na mhm. mu ngi waaja a des fukki fan mhm. yi mujj ñu dem ci gàmmu gi euh, am na programme boo xam ni mhm. dinañ koy gis ci grande mosquée muy jàngum njàngum ibnu muhayib ak waxtaan ci ay thèmes yu yaatu programme boobu est-ce que ci wàllu historique am mooy fan la cosaanoo bi ñu ko commencé def ak ci leen loxo la jaar ba tey est-ce que mën nañ cee indi ay fàttali jërëjëf Baye Ndiame comme ni nga ko waxee rek ci wàllu historique programme bi. Mhm. mën nañoo wax ni. Mhm. formule yi mooy changé ak TED yi. dëgg mais programme bi moom yàgg na. Mhm. li tax mu yàgg mooy comité scientifique bu ba def na fukki at ci ginnaaw wala lu ko jege. dañoo daje daal di waxtaan. gis ni fukki fan yi njëkk ci gàmm gi war nañ ko dundal ci ay waxtaan. ak ay ibnu mayib. macha ca loolu di organiser woon waxtaan wut benn thème bu mag mm-hmm. daal ci génne ay sous-thèmes mm-hmm. séddale ko borom borom xam-xam yi bokkoon ci comité de ki euh, scientifique bi mm-hmm. ba pare di wër ci koñ yi di ko def chaque jour ñu ni benn koñ chaque jour noonu lañ ko commencé woon loolu loolu loolu idée bi idée bi laa wax idée bi waaw foofu la démarré mais biñ ko defee euh, mobilisation biñ ci soxla woon amuñu ko bon am na ay sooxe yenn ginnaaw ginnaaw gi nag ay nit ay bon volonté ku mel ni taal Talla Niass Diop ku mel ni sëñ Babacar mu mu sëñ Souleymane borom xaas ak ñi àndoon ak ñoom dëgg la daal ni nañ dem ci jumaa ji nag mhm. bu fukki fan yi teroo mhm. ñuy jàng ibnu mayim ngir di ko wéttali ko waaye di ko wéttalee taalibe itam masha Allah loolu moom moo ko kii bi bi loolu amee nag mhm. comité scientifique bi jaar ci ci man ma man boog man nga xam ne membre laa ci comité scientifique bi ma dem daal ci adhéré bi ma ci adhéré it ànd ak ñoom accompagner leen daal di intégré li o comité scientifique bi ndaka jekk doon proposé mu mu mu mujj nekk lii nga gis ni kon man naa wax ni def ci jumaa ji man naa yees waaye nag idée bi moom waaw comité scientifique moo ko njëkk a xalaat te mi ci doon dox mhm. lii dafa ñëw rek mhm. mu nekk complémentarité ñu ñu daal ciy continuer mhm. boobaak léegi it ñu ngi ciy gis euh, léegi mën naa wax ni lu officiel la ndax sëriñ bi ci boppam moo ci joxe ndigal macha allah ak mbooleem muqaddamam yëpp ñoo ci ñoo a confirmer ndigal loolu kon fi mu ne nii moom alhamdulilah na yi ñu ñu bëri di xaar ci gàmmu ci nag euh, mu nekk lu am solo mais tey euh, buñ doon évaluer à mi parcours mooy commencé nañ ko ay at nga wax euh, léegi euh, fa mu jóge mm-hmm. ñu def ko ay at mm-hmm. ba ba daaw mm-hmm. euh, évaluation bi ci wàllu avancement ba lan la ñuy defal boobaa relativement dañuy wax ne am na avancement mais dañ ko relativiser waaw gis nañ ni mën na ko romb di dem waaw mais relativement am na avancement ndax bi ñuy démarré fi fi mu nekk fi mu tolloon ak léegi fi mu toll y a une allah mais ba léegi nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi seq ay jéego war a ay jéego yoo xam ni jéego yi xëy na ñi ko ñi koy organiser ak di ci góorgóorlu ñi ngi ciy def seen képp lay kattan. Mhm. mais adhésion bi war am ci population yi di ko teewee surtout di jëmmal image yi. Mhm. loolu moom moo xaw a des. trop trop trop. Mhm. Mm-hmm. yéen a ngi liggéey ba ba baywaar yéen ñi nga xam ne yéenay yéenay euh, caméra mm-hmm. di image xam ngeen ni mm-hmm. as côté boobu moom dafa sooxe lool te loolu njort naa ne du organisateurs yi mais population yi nga xam ne ñoom ñoo war a affilié wu dem di ko teewee ñoom foofu la xaw a manqué bu ñuy xool côté daal bu buñ jàpp ni war nañ ko gën a complété mooy mobilisation waaye le reste moom ñu ngi ciy am satisfaction. Mhm. bon bu dinañ ko jéem a améliorer mais ñi ngi ciy am satisfaction relativement. Mhm. macha allah mu nekk lu am solo euh, xam naa loolu la ñuy delluwaat gannaaw tuuti rek. Mhm. Euh, xool ci rétroviseur bi. Euh, mooy xool programme yi fa mu cosaanoo wax nañ ko ci wàllu historique. waaye xool nañ tamit bi ñuy dox ak léegi. ba fii fi ñuy yam ni nga ci waxee rek noonu la demee. waaye man gisaat naa ci beneen tomb. boo xam ne ci wàllu avancement la. gis naa ci benn benn benn benn jàppoo. wala benn communion boo xam ni fexe ngeen ba am ko par rapport ak euh, niti canaba yi mhm. muy boroomi xam-xam yi nga xam ni yeewoowuñ biir canaba euh, le fait que ngeen dem di leen tàllal loxo ñuy ñëw di def ay thème mhm. wala ay sous-thème loolu tamit bokk na ci mhm. impliqué taalibe yi nga xam ni euh, yeewoowuñ canaba loolu tamit <laughs> beneen jàngat la boo xam ne jàngat daa ko ci lu am solo la waaw waaw <laughs> ndax damay wax faral di wax mbokk yi naan leen bu fekkoon ni sëñ Ndiame moo organisé une conférence ci image sëñ Ndiamé lay jël ndeysaan mhm. mais boo ñëwee ci jumaay maam Amari Ndaak daal di maam Amari Ndaak mhm. ah da koy dépassé day dépassé dëkk bi mhm. day nekk communauté Thiénaba yëpp te boobaa day day romb Thiénaba Seck en tant que dëkk mais mboolem ku gëm maam Amari di di nampe ci weenam da da lay concerné kon ñun Thiénaba la ñuy defal Thiénaba la ñuy xalaatal kon Thiénaba la la a nekk en miniature loolu moo tax ñun itam buñ ciy xalaat noonu la ñuy xalaat la dañuy def en sorte tarixa bi ci boppam mhm. ak yaatuwaayam mhm. gis ci gis ci boppam maanaam daal ciy feeñ mhm. loolu moo tax nga gis yenn ñuy ñuy jël ñu dëkk cana ba di jël itam ñoo xam ne dëkkuñu ba waaye ñoom ñëpp am na lu leen yeewe mooy ci weenu ma mooy ndaag la ñuy naan macha allah macha allah donc loolu mooy loolu mooy gis-gis mu nekk lu am solo xam naa baay euh, bu ñuy ñëwaatee rek <laughs> euh, wax nag ci programme bi ñu dëgmal Euh, muy gàmmu 2023. Euh, yaakaar naa programme bi euh, war a commencé ci fan yi buñ ñu mënee xamal ban jour lay commencé. Mm. jour d'ouverture bi ak ci wàllu ouverture bi. Mm-hmm. naka lay demee bu ko defee ñu waxtaan ci mën nag jàngat. Mm. programme bi mm. bës par bés. programme la cee am ak lan lañ ci war a communiquer rek bu ko defee ki jàkkaarloog ñun mën koo xam. Mm-hmm. jërëjëf programme bi moom. Mm-hmm. bi muy tàmbali ñun ñëpp xam nañ ko ndax. utal luñ ko dat yàlla moo ko utal dat mhm. ndax suñu borom moo indi li ñuy tuddee weeru rabiul awal mhm. rabiul awal ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu fu mu mas a teru mhm. rawatina mutasawifa yi ay murabbuuna yi dañuy dundal guddi yooyu ngir fàttalikoo ko ngir jëmmale ko ngir sante ci yàlla ci xéewal gim leen jox te mooy xéewaluk Seydina Muhammad xam naa ni ñun ñii ñëpp ko ci gane àdduna sa bis bi nga gane àdduna bu ñëwaatee danga jëmmal dara ngir wane ni bis bii laa gënee woon àdduna rawatina nag nga xam ne nag jinne yi moo leen xettali mhm. moo xettali doomu aadama yi mhm. moo xettali ñuy weesu mhm. moo ñuy ñëw ñi ñëw moo xettali ñuy ñëwagul dëgg la kooku jàpp naa ni ay bis yi nga xamante ni ci la feeñe jamono bis yu symbolique la bis yëpp moo ko moom ndax ab bisam moo jur bis yëpp dëgg la waaye nag euh, bis yii nga xamante ni mooy bis yi mu gënee àdduna di anniversaire am damay wax ni bu fekkee dañ koy célébrer non seulement ñi ngi célébrer naissance yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais aussi ñi ngi célébrer mhm. naissance njub maanaam njub mhm. bi yonent bi juddoo la la ganewaale àdduna mhm. dëggu bi yonent bi juddoo la ganewaale àdduna développement bi yonent bi juddoo la ganewaale àdduna dëgg la xam yàlla bi yonent bi juddoo la ganewaale àdduna kon célébrer naissance yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nga wax ne en même temps mooy célébrer alhuda njub mooy célébrer al al euh, mu waa ragal yàlla mhm. mooy célébrer lépp lu baax mhm. ba tax na mhm. yëg-yëg bi rek mooy weer yi bu xasee teru rek suñu lépp dañ koy def delloo ko ci jëmmam ju tedd jooji ak am njàngaleem moo tax bu weer wi teroo rek ñun dugg nañ ci programme bi waaye comme nag lu ñuy programme aw nit war a fi teew te weeru wolof da maanaam man na kaamil mën na ñàkk kaamil moo tax ñun dañ koy organiser rek bu weer wi kaamilee su ko defee bon du am jafe-jafe ci organisation bi moo tax ñu gis ni. Mhm. bu fekkee ni euh, weer wi kaamil maanaam ñun lu ñu programmé. waaw mooy euh, samedi le 16 septembre 2023. le 26. le le 16. le 16 waaw le 16 septembre samedi le 16 waaye. Mhm. moom lay moom lay démarré. Mhm, buñ sañoon nag bis yëpp. ñëpp teew. waaye rawat na nag bis bi nga xam ne ci la ñuy lancé nag programme bi nga xam ne sëriñ bi joxe na ci ndigal lu yaatu ñëpp mënuñoo teew ci ci ci bis yëpp waaye bis boobu moom lu nit ñi mën a gën a teew rek moo gën bisu tëj bi tamit lu gi nit ñi gën a mën a teew moo moo gën ñi ci des nag ñi gën a jige mhm. bis yi ci des mën nañoo assister lépp mhm. waaye yii moom buñ sañoon ñu gën ci bàyyi xel mhm. moo tax sëriñ bi ñu ngi ci ma dem naa fa Euh, mbo mbokk daara yi dem nañ fa. Mhm. lim ñu wax rek mooy na ngeen gën a taxaw na ngeen gën a góorgóorlu waaye thèmes yi ngeen di tànn tamit na sax mag ñi na ci ñëpp teew. loolu mooy ndigal li. Mhm, mhm. porte parole tamit noonu la ko waxee. mboolem kilifay dëkk bi itam noonu la ko waxee. kon su ko defee sëñ Baye Ndiame. samedi septembre incha allah la ñuy tàmbali. mooy ouverture bi ouverture bi. bu ñu sañoon nag fu nit nekk. ab jullit nekk wala nit sax fu mu nekk. waaw na talimaa mën ndak na ñ ca biir jumaa ja assisté ko teewe ko. ànd koog loolu mooy loolu mooy euh, ta ta kii euh, bis bi ñuy tàmbali. Mhm. bis yi ci topp yëpp te mooy mhm. fukki fan yi ci topp yëpp. Mhm. chaque jour même programme moo fay am. xëy na boo ñëwee ci question ñu ñu ñëw ci. waaw waaw mën euh, nañoo dugg ci ci ci ci en même temps. ci premier jour bi. muy jour samedi bi. le 16 septembre. ban programme mooy am. ci njàngum Ibnu Muhayib bi. ban programme mooy am aussi ci njàng ci wàllu waxtaan wi. jërëjëf. avant may ñëw ci programme. dama damay expliquer damay damay expliquer. waaw pare ñun lañu daan def. Mm-hmm. bu gàmm gi ñëwee rek ñu tànn benn tem wut ci ay sous mm-hmm. ren nag dañoo ñun ñëpp dañoo ànd d'accord ni. Mm-hmm. téere bii ñuy way ak di ko jàng. war nañ cee taxaw. waaw ndax ñi ngi koy way mais ñu ko dégg bëriwul. mooy thème bi mooy thème bi. donc ñun nan la ñuy jëlee téere bi nag firi ko. mais firi ko prix moo xam dana wuuteeg prix di dem nii rek. dañ koy jël ci thème ay thématique thématique yoo xam ne moom développé na ko ci biir téere bi moom la ñuy xëcc jël ko par thème par lépp ñu séddale ko mhm. moo tax euh, suñu suñu temu ren mhm. mooy mooy mooy dirasa taxliliya ay di la ashirin ibnu may maanaam mhm. njàngu euh, njàngalem prix ñeel téere ibnu may bi njàngalem prix prix waaw maanaam waaw étude analytique euh, du livre d'Ibnul Mouhayib maanaam analyser waaw firi saytu càmbar téere ibnu may bi léegi nag biñ gisee téere bi xam na dina ñëw ci thème yi da jërul ma ma ciy jiitu dañoo gis ni thème téere bi. Mhm. am na lu ñuy tuddee euh, mu tuddee chacal am na forme. Mhm. mais am na aussi euh, fond maanaam contenu. Mhm. boo ñëwee ci contenu bi nag. di nga ci gis ay thèmes yu bëri yoo xam na ma jox la exemple rek. bu waxee ni madixu nabiyallaahi azka taabudi. nee na tagg yonent bi sallallaahu alayhi moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi. donc soulevé na benn thème. kon tagg tagg yonent mooy lan. mooy lan lan mooy ay limitam. lan mooy ay njëriñam. nan lañ ko mën a comprendre ñun en tant que julit uh-huh. exactement loolu la ñuy jël nag daal di koy teg table jox ko kenn mu approfondir ab ab ci poñ boobu mm-hmm. bu ñëwee daal ñu koy dimbalee mu nekk lu am solo noonu lañ koy toppee nag mm-hmm. di ko toppee noonu di ko toppee ba liñ ci mën a am parce que mm-hmm. mënuñoo jeexal lépp dëgg la mais au moins jukki nañ ci fukk yoo xam ni waaw day dellu ci téere Ibnul Muhib bi te dinañ ci waxtaan incha allah nekk ñu jël ci benn ñu jël ci benn ñu jël ci benn léegi bu fekkee premier jour bi boo seetloo waaw maanaam maanaam dañuy introduire waaw dañuy dañuy dañuy xamle téere bi ubbi wi ubbi waxtaan waaw ubbi daal mm-hmm. daal di xamle nag téere bi mooy lan waaw lan mooy origine mm-hmm. fan la jógee mm-hmm. kan moo ko bind ñan ñoo ci mas a def ab liggéey ci ay borom xam-xam suñu mag ñi bi nga ci jotee lan la bañ tus lañ ci yokk lan mooy li nga xamante ni ñun buñ koy jàng maanaam côté éducatif bi nga xam ne mag ñi ajouté nañ ko ci ngir mu mën a jariñ askan wi dëgg la yooyu lañ ñëw nga xam ne moom mooy tijji nag bu defee buñ ñëwee nag daal di continuer thème par thème thème par thème ba keroog ñu yegg fi ñu jeex boo seetloo fi ñuy jeexalee thème boobu dafa am solo <laughs> aw saan la woo xam ne dañoo bëgg a dégg kàng ja à la fin mhm. moo tax buñ demee firi firi ba muy jeex mhm. mais boo seetloo thème bu mujj bi dañuy wax ni euh, kitaabu Ibnul Wadaru Tarba yi maanaam le la la le livre d'Ibnul Mouhib et son mhm. rôle éducatif ah. dans la société islamique donc thématique yooyu ma di wax nabi yàllaay azka taabudi ak leneen ak leneen lenn rek la am objectif bi mooy nan lay jubbantee doomu aadama ba mu gën a jege yonent bi dëgg la léegi nag moo tax bi ñu koy tëj dañuy wax ni téere iduma yëpp ak rôle éducatif bi mu mën a def ci société mm-hmm. islamique bi mm-hmm. donc muy lu am solo mm-hmm. ak yeneen thèmes yoo xam ne mi ngi ci biir donc ci gàttal euh, téere iduma yëpp daal la ñuy firi ay lañ ko jël nii lañ ko tëjee nii lañ koy tëjee sëñ euh, ci ci wàllu wi euh, macha allah mu nekk loo xam ne lu am am solo la loo rek doy na gàmm wax dëgg ah yàlla mu nekk lu am solo tey téere iduma yëpp ci la ñuy wax ñëpp xam nañ ni dañ koy woy mais programmation yi ñan ñooy woy ak ñan ñooy def thème yooyu. <laughs> jërëjëf est-ce que loolu tam mën ngañ cee dikkal. way way bis bu njëkk bi. Mm-hmm. Euh, ñun ñii man man euh, man maay def euh, waxtaanu ubbi wi. ubbi wi. waxtaan bi modérateur. man maay non man maay joxe cours bi. ah ok waaw maay maay waxtaan maay maay bi daal. mais waxtaanu ubbi la. waaw ndax dañoo bëgg a lay taayal Ibnu Mayib. ci boppam wax ban téere mooy thème bi ñu jël rek. mooy mooy ubbi présenté introduction bi. introduire ba pare. ba introduire nag thème yi ñëwaat gox yi affaire bi day tijjee ko moo tax euh, ñu chargé ñu ko ñun ñi mhm. sëñ Badji bi moo nekk mooy nekk modérateur bi. moo euh, nekk Ndaw moom moo nekk ki nga xam ne moom mooy ànd ak ñun ci Ibnu Mayib. bu fekkee deuxième jour bi tombé ak dimanche 17 mhm. septembre 2023 ku ñu ñu ngi waxtaan ci Seydina Muhammad mhm. wa man manzilatuhu fil wujud mhm. maanaam Seydina Muhammad est son statut dans la créature mhm. créature de façon générale yonent bi ban statut la ci am te a ah, may wax na ko taqaddasa zaatan summa qablan ba turbatan wax na ci bayit yu bëri bëri yoo xam day wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fi ko yàlla teg ci biir mindee ci biir mindee ak ci biir créature yi donc boobu al oustaz Assane Cissé moo ñu koy defal dëkk béer di jàmbaar macha bi muy def master moom. Mhm. ci maam amay ndaag la doon bind. bind. Mhm. <laughs> donc borom xam-xam la. bu ñu bu ñu naw xam-xamam. Mhm. Eh, Serigne Jibrilu Seck bu bu sëñ Maodo moom moo koy modéré. moo koy modéré Pape Laye nga xam ne moom tundu jëndee la rek moom mooy eh, way Ibnu May bi. Eh, troisième jour bi di tombeeg lundi 18 septembre 2023. ñu ngi wax ci al alquranul karim al mujizatul xaalida. alquranul karim le miracle éternel. ndax Ibnu May tamit tudd loolu dafa wax ni. waaw ataana bi quranin yenent bi indil nañu téere boo xam ni mhm. karimin bu tedd la mu fassalin bu ñu firi la bu ñu détaillé la mhm. Mhm. ban téere la lan mooy alxuraan nan la nekk na a nekk miracle bu éternel question boobu dañ koy laaj Serigne Thierno Kayre moom itam jànge Kayre àll jànge Égypte ba amee fa master nekk professeur. Mhm. moom itam moo ñuy defal thème boobu. macha allah euh, euh, Cheikh Kayre mbokkam moom moo koy modéré modéreel. Mhm. Mass Gueye bu mu kër ma Gueye ak ñi ma àndal ñoom ñoo koy jàng. jàngal mhm. quatrième jour bi tombé ak 19 septembre 2023. Euh, ñu ngi waxtaan ci axlaaqu nabi. les vertus du prophète Mohammed. ay jikkoom. ndax xalaa'iquhu anda min al ghaysi idhama <laughs> gis nga ay jikkoom. nee nañ yonent bi baax na baax goo xam ne ay jikkoom boo ko doon mën a méngale. ci rafet ak taaroog mën a jëriñ mhm. mooy mi ngi mel ni garab gu meññi meññit mu mu neex ci lekk mhm. ba tàbbi nit ñi di ko lekk sans ñu am problème mu fajal leen seen xiif fajal leen seen mar léegi nag ñu jël euh, sëriñ Modou Madi yu Cissé mhm. ah non asafullah sëriñ Xalifa Diop moom mi ngi dëkk Faas Xalifa bu Faas bu Faas moom moo koy def euh, di ca ànd ak sëriñ Babacar bu bu bu bu bu sëriñ Souleymane xaas sëriñ Souleymane ñi ngi moom moo koy jàng axlaaqu nabi damaa jum axlaaqu nabi mhm. sëñ Mouhamad Madiou Cissé moom moo koy def koy def mhm. euh, sëriñ Pape Assane Dia mhm. Alassane Dia moom moo koy modéreel sëriñ Baye Kane moom mooy diriger Ibnu may bi euh, cinquième jour bi di le le vingt ñi ngi wax ci salaatu ala nabi wa fawaiduha maanaam la prière sur les bienfaits de la prière sur le prophète Muhammad mhm. maanaam njëriñ yi nga xam ni moom la julli ci yonent bi am mhm. boobu la Xalifa Diop di ñu defal mhm. euh, ànd ceeg Sëriñ Babacar Seck ibnu borom xaas Souleymane ñi ngi di ko jàng ñeel waa Faas rek waa kon waa tundu Faas <laughs> yëpp rek <laughs> mu nekk lu am solo loolu la ñu jublu maanaam dañuy tudd kenn mais liñ jublu mooy tund bi yëpp dañuy gis seen bopp ci bis boobu euh, euh, vendredi wala wala jeudi. 21 mhm. septembre. Mhm. ñi ngi waxtaan ci kamalu risal muhammad wa sumuliyatuhu la mhm. globalité du message du prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam alors ah, Ibn Muhib tamit junj na loolu maanaam téere bi nga xam ne moom la message bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ni mu ni mu globale ni mu ñàkk a bàyyee lépp dara te e, thème boobu nag sëriñ Ibrahima Cissé mu ci nabagaar moo ñu iddi imam mu Baye Moussa Cissé Baye Iddi Cissé moo koy gunge sëriñ ajjuma 22 septembre 2023. Mhm. ñi ngi jël dawru saxaaba fi na si islam maanaam rôlu saxaaba yi. Mhm. ci tasaare di l'islam. Mhm. saxaaba yi ban rôle lañ joué ci tasaare l'islam boo demee ci idumay idumay nee na ulul birri wa taqwa wa ahlul fadaili daa wax ni ñoom saxaaba yi ñoom ñooy ulul birri ñooy bu mbaax. moo ñooy borom moo rogee wan daal rôle bi ñu doon joué ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ñu jël ñoom daal di jël nag saxaaba yi ban rôle lañu joué ci tasaare lislaam ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. boobu alaaji ñang mu bàyyi alaaji ñang mu mhm. bàyyi madike ñang mhm. kër njaga saar moom moo koy def ànd ceeg mbokkam sëñ madike mu bàyyi bakari ñang sëriñ Souleymane Guèye moom mooy jàng euh, bis boobu euh, samedi 23 septembre 2023 ñi ngi waxtaan ci mahabbatuhu sallallahu maanaam euh, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son statut dans la foi musulmane. Mhm. maanaam euh, bëgg yonent bi. ak ban place la am ban ban place lay occupé. Mhm. ci ci ci ci pas-pas ak ngëm-ngëmu nit ki. Mhm. léegi loolu. thème boobu tafsir Souleymane Guèye di sama jarbaat. di euh, doon tafsir ci daara yi ba euh, Cheikh Bakar Si moom moo koy def. sëriñ Baye Ousseynou Seck mu sëñ Modou Rokhaya moo koy gunge. Mhm. sëriñ Moustapha Seck Adama ak ñi mu àndal ñoom ñooy. diriger diriger voilà. Mhm. dimanche 24 septembre. Mhm. ñi ngi waxtaan ci al isra wal mi'raj durus maay bar. la les leçons à tirer du voyage nocturne. maanaam ñu ngi ci jublu isra wal mi'raj maanaam maanaam kii yi mu tëdd yi reñaan nga. riñaan gi mhm. yan leçon lañ ci mën a tiré mhm. imaam ibrahima Diop mu alaaj sëriñ Diop moom moo koy def mhm. sëriñ Abdou Aziz mu borom xaas moo koy gunge daari idu may bi nag moom mooy jàng bis boobu dernier bi nag mi ngi tombeek euh, bu fekkee faussé wuñ dara mi ngi tombeek le vingt cinq septembre deux mille vingt trois euh, boobu ñi ngi waxtaan ci kitaabu Ibnul Mouhib wa dawru tarbiya maanaam le livre d'Ibnul Mouhib et son rôle éducatif dans la société musulmane léegi euh, boobu nag sëriñ oustaz xaar mhm. Fall moo koy def mhm. Thiès bu Thiès mhm. ci ndigalu Sëriñ Maxtar oustaz xaar moom moo koy def mu te mooy tëccali sëriñ Maam Bokar Cissé moo koy gunge sëriñ Pape Mor Gueye di doyen mboolem kuy jàngi dume fii Thiénaba moom moo ñu koy tëjal ñu barkeeloo ci moom kon sëñ sëñ jàmmee ci gàttal lii lañ programmé gul di ñaan suñu borom may ñu kattan guñ ko guñ ko exécuté guñ ko guñ ko defar su ko defee sëriñ Pape Mor Gueye moomu nag ma wax léegi dañ koy tuddal bis rek daal ni moom dey bii dañ koy bàyyi moo ñuy tëjal daal moo ñuy tëjal moo ñuy tëjal nga tudd jeex na waaw mhm. jotaay buñ lu mu rëy rëy rëy bu kilifa kilifa gi moom mooy ñaan ñu daal di yeewee bu ñaan lu ñu yeewee ah kon moom yeneen bis yi yeneen bis yi tamit moom kenn kenn limité wu ko ibnul mooy bi moo yeneen bis yi bu ñëwee rek am na parti bu mën a duggee barkeelu li ñuy def moom lañ koy defal saa ñëwee kàddu gi mi ngi ci moom mhm. ba keroog mu koy jox ko ko neex mhm. kon ba sëñ Pape Mor Gueye moom ñëpp moom la ñuy jàppale ci loolu mhm. euh, kon loolu lu mat a préciser la aussi macha allah lu mat a préciser la ci ci côté boobu donc euh, di ñaan suñu borom may ko kàttan may ko wér ba gàmm gii ñu dëgmal itam lam ñu daan def rek mu defal ñu ko te lépp kii te defal ko mbooleem jullit ak ñëpp ñu daan jàpp rek amiin kon su Baye Ndiame ci question boobu amiin yaa rabbi euh, macha allah mu nekk lu am solo xam naa jaajëfal la bu baax baax ndax mm-hmm. euh, leeral yi am na solo mm-hmm. euh, te lii ngeen di def wax dëgg yàlla seen bopp ngeen koy defal waaye canaba ngeen koy defal kon bu ñu toogee tamit dinañ leen seedeel mm-hmm. mbégteem moo xam ne mbégteem taalibe yi la waaye mbégteem kilifa yi la macha allah kon mbokk téléspectateur u canaba TV yéen ñiy seetaan di ànd ak ñun ci internet bi nekk ay internet di ñu seetaan macha allah ñu ngi waxtaane ci fukki fan yi nga xam ni moo jub gàmm euh, te ñu koy jàng ibnu muhayb ci grande mosquée bu Canaba euh, programme boobu la ñu toog ak euh, Serigne Mohamed Mati Seck nekk coordonnateur programme boobu macha allah teewal ñi nga xam ni ñoom la àndal ci liggéey bi ci loolu la ñuy indi ay leeral Serigne Mohamed. Mm-hmm. xam naa am naa benn laaj boo xam ni. Mm-hmm. ndax sàng bi ngay lim di lim programme bi. Mm-hmm. di lim ñu koy def. damaa gis ni diversité am na ci. Euh, wax nañ ko ci njàlbeen mhm. euh, gis naa fi euh, conférencier bu dëkk Jandeer mhm. wala ànd ak woykatam gis naa fi conférencier bu dëkk Faas mhm. ànd ak woykatam gis naa fi Canaba Gaar maanaam gis naa fi waa Kayre gis fi waa Kër Njaga Saar gis fi gis fi noonu diversité boobu réflexion boobu est-ce que ci wàllu mobilisation tamit ñoom mënuñu leen a woon a gën a imprégné ndax ñoom ñu bañ a ñëw rek noonu waaye mobiliser zone ba ñu nekk. dëgg la bis bi ñuy aye ñoom tamit ñu occupé waale euh, ci wàllu mobilisation est-ce que liggéey boobu tamit am na ci. jërëjëf benn question bu am solo ngi noonu. waaw waaw. ku gis ni ñu tànn rek. waaw xam ne bu ñu sañoon. waaw dañoo munta tànn jëm yépp ci gox bu ne. Mhm. moo tax ñu tànn ci kenn mu symboliser leen. waaw li ñu ci jublu nag mooy mbooleem ku fa nekk te sa jot may la ko. man koo gunge nga accompagner ko. waaw ngir taaral jotaay. <laughs> waaw loolu moom baye boo ñu bàyyi ci xel. waaw même conférenciers yi nga xam dañu leen a tànn. Mhm. responsabilité la. Mhm. <laughs> responsabilité la wax naa ko mboolem ñuñ tànn nee naa leen ñun ñëpp ñoo ci yem mhm. ndono diine ji mhm. nit mën naa jege mhm. mën naa sori waaye ñun ñëpp ñoo ci wokk meen responsabilité kon su ko defee ay sacrifice la ku ci nekk jël ci sa temps loo xam ne di nga ko taarale jumaay maam amari ndaag waaye di nga ko taarale lislaam di nga ko taarale bi sallallahu alayhi donc su ko defee képp koo xamante ni jël nañ la ngay conférencier na nga def effort ci ñi la wër nañ ñëw suñu alaaji ñang moom xam naa ni mhm. dina invité mboolem ku dëkk kër Njaga Saar mhm. de mboolem ku dëkk ca tund wa mhm. mboolem ku gorowoo ci maam ba Ñang waaw damay wax sax ni waa foofu xeer woo moom maaxu moom xeer woo moom maaxu moom damay wax ni njabootu kër Njaga Saar gi nekk Canaba waaw rek bu ñu mobiliser woon euh, ñeneen ñi nekk ci yeneen i gox kër Njaga Saar rek Dakar ak li ko wër. ñëw journée boobu ñu ñëw dinañ xam ne bu boobaa. Mhm. Euh, cër bi ñu leen jox ñoom rafetlu dañ ko loolu tamit cër la. effectivement maanaam fa nañ bàyyi xel loolu mhm. maanaam Baye euh, Serigne Baye As bi ñu ko bi ñu ko expliqué wax ko ko. Mhm. da kontaan lool ba pare daal di joxe ndigal ni ñoo ñëpp maanaam famille yooyu yëpp. nañ teew macha allah donc kon na ñëpp xam ne rek. buñ sañoon bis bi nañ ñëpp teew waaye kuñ tudd conférencier bu la laal lu ndaw ndaw. waaw jàppal ni bis boobu. boo teewul lépp yàqu. macha allah mu nekk lu am solo kon <laughs> euh, waa Jandeer euh, ñu ngi may dégg euh, waa faas ñu ngi may dégg waa Kayre ak waa Canaba Gaar. Mhm. ak waa Kër Njaga Sarr xam naa Kër Njaga Sarr moom yomb nañoo jottali yoon yomb jottali ndax Baye Omar ñu ngi koy ziara bu baax mm. Baye Omar Ñang mm. mu ngi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. wala bu seetaanul tamit njaboot gi dinañ seetaan war ko ko mën a wax. Mm. bu ñu nee tamit ay tur ci li wër Canaba wala li jokk Canaba. gàmmu Canaba ren man ngaa jël programme bi waaye bu déwénee da ngay demaat ci yeneen zone yeneen i gox ndax yeneen gox yi déggul tamit seen bopp bu ba mën nañoo jàpp ni euh, loolu la waaye foofu li ma fiy laaj benn question mhm. mooy euh, kuréel gi nga xam ni ñoom ñooy tànn boroomi xam-xam yooyu mhm. euh, ak kuréel yan kuréel tamit ñooy tànn mhm. ñi nga xam ni ñoom la ñu jagleel Euh, jàng ibnu mohib euh, loolu nan ngeen koy tànne ak nu ngeen koy euh, <laughs> yan responsabilité la waaw comme mbooloo dañuy dañuy séddale liggéey bi rek ku ci nekk ñu xool wàll wàll wa nga gën a màcce mhm. ñu dénk la ko am ñu la accompagner ngeen ngeen liggéey bu fekkee wàllu ibnu mohib bi mm-hmm. ñu ngi ko dénk daayira ibnu mohib bi mm-hmm. Baye Saliou Mbeng nekk seen bopp mm-hmm. ñoom ñoo doon saytu ñuy jàmbaar lool na ñuy jàmbaar lool ñi ñi ñoom ñooy saytu ñiy jàng ibnu mohib bi ak ku ci nekk ban buntu ngay ñu leen programme comme ni ngeen ko gisee ci programme bi bu fekkee ñi nga xam ne ñooy waxtaan ci thème man maa jiite liggéey boobu ak ñi ma ci àndal yëpp ànd ceeg nag Ihya Outouras di benn ñooñ mooy ñan. voilà di benn mbooloo moo xam ni. Mm-hmm. mbooloo mën naa wax ni mbooloo muy doog di sosu la. Mm-hmm. officiellement. Mm-hmm. donte idée bi yàgg na fi. waaw Serigne Makhtar Serigne euh, kii Baye Ousseynou Seck mu Serigne Makhtar. Seck bu Serigne Makhtar Seck imam nekk étudiant. nekk étudiant. pire ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal nekk étudiant université Anta Diop mm-hmm. di nekk L3 war a def licence ren mm-hmm. waaye nekkaat tamit étudiant pire en même temps moom ak mm-hmm. ñi mu àndal ñëpp ñu bokk génération wala ñi leen gën a faussé ak ñi nga xam ne ñoo nekk sax ci université di jàng tubaab ñoom ñoo créé seen mbooloo mu tudd Ihya Uturas di def même liggéey ñun bi ñu def ñu gis ni ñun Ihya Uturas Ihya Uturas maanaam ñu gis ni ñun jërul ku ne di xëcc jëme fenn comme rôle yi benn la ñun nañu jël accompagner leen. macha nga xam ne ëllëg si biir. Mhm. yàlla tere. Mhm. ku ku tële ci ñun itam. Mhm. ñoom doxal affaire bi am continuité. kon Ihya Outouras. moom moo koy organiser. Mhm. ñun ñu accompagner ko ci macha allah euh, mu nekk lu am solo kon ñuy jaajëfal mbooloo moomu muy euh, Ihya Touras mhm. euh, ma wax leen ni leen mooy tekki mouvement pour la vivification des patrimoines islamiques mhm. muy mbooloo moo xam ne sosu na wax nañ leen président bi muy bàyyi Ousseynou Seck mu sëriñ Maxtaar Seck imam macha allah ak ñim ci ñu ko bokkal ñoom dinañ ci dugal seen loxo bu ko defee organisation bi gën a Euh, gën a gën a gën gën a rafet mhm. waaye gën ñoom tamit loxo yi gën a bari mhm. ndax mbir moom bu loxo yi gën a bari rek mhm. xel ya gën a bari euh, mbir ma gën a sotti euh, ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mbooloo moomu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di accompagner ci liggéey bi Serigne Mohamed xam naa bon wax nañ wàllu programme bis bi nan lay demee te waxtu waa ngi dem xam naa dama lay delloo kàddu gi bu ko defee xaj na du ñàkk information wala message boo xam ne bëgg nga koo jàllale jëmee ko ci li nga xamee ni moom mooy programme boobu xanaa message bi may jàllale mooy di remercier ak sant mboolem ñi nga xam ne ñoo daan contribuer directement wala indirectement am na ñoo xam ne dañ daan bis boobu dañuy mobiliser wu chaque jour ñëw dajale ay teraanga indi ko fa mhm. di ko wettilee jotaay bi mhm. Euh, seen njaboot gi nekk fii nii ci koñ bi. ñu ci jàmbaar lañ. ci njiital Cheikh. Cheikh Cheikh Alioune. Cheikh Alioune bu Pape Mor Gueye bu Pape Mor Gueye. ànd ak ñoom Baye Talla. ak Baye Talla ñoom ak yi ñu bokkal ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di vraiment tegguñ seen seen loxo. Mm-hmm, mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak mboolem ku ci contribuer ak noo ci mën a contribuer. Mm-hmm, di gën a ñaax rek. organisateurs yi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw di contribuer ñu xam ni. ju ci jumaa ji lañ nekk. te jumaa ji dafa am lu mu laaj. su ko defee bu ñëwee rek ñun nañ coordonné ak Ihya Outras ñoom dinañ leen dinañ leen jige su ko defee ñu xool ñoom nan la ñuy dérouler ensemble sans perturbation di am ci lu bëri ñi ngi ñaan itam jumaa ji ku fay ñëw képp koo xam yaa ngi fay ñëw na nga fexe ba booy ñëw na nga indi na na nga set parce que nag investir dañ faa investir yoo xam ni mhm. dëgg-dëgg méngoo wut ak nga ñëw say daal la takk sa tànk takk nga ñëw dugal ko ci wala nga ñàkk sol yére yoo xamante ni dina méngoog jumaa ji loolu tamit wax dëgg yàlla bu ñu sañoon du am mhm. ku ko fa def nag njort nañ ni dañ lay génne waaye bëgguñu ko sax mhm. mais na ñëpp rek waajal seen bopp ci côté mhm. boobu ko defee noonu lañ ko bëggee di woo ñëpp nag bàyyi njàmme may wax ni lii ñuy liggéey nii li ci war ci boo gisee jéego yi xaw a yeex sax moyen maanaam alal ju liggéey ah. moo fi nekkul hmm. mais buñ ko amoon dina hmm. weesu fii dëgg la yéen waa Thiénaba TV. Mhm. bis bu njëkk ba ba fin bi. Mhm. da ngeen dagg seen programme yëpp. di ko jàllale te mhm. benn dërëm. du jóge ci benn mbooloo. ñëw ci yéen ngir lool. dëgg te li ngeen di def. bëri na ñu tëdd seen néeg di ko suivre en ah, direct. te yéen a tax ñu koy suivre. te yéen logistique ngeen di déplacé. connexion ngeen di mhm. te loolu lépp ay coût la yu yu yu am solo yoo xamante ni day day day day day gàllu seen los. dëgg la te communauté bu toll ni Thiénaba. Mhm. nga xam ne ay dizaine de mille personnes ñoom ñoo mhm. ci affilié eh, eh, wu. ñu amoon bu ñu amoon euh, foofu doguma la sëñ bi eh. euh, mais foofu Thiénaba TV tamit euh, programme yi mu ci xalaat. sax bari na mais ay moyens moo ko permettre. Euh, xalaat na ci lu bëri. xalaat na ci lu bëree bëree bari bëri. loo xam ne nii euh, def nañ ci ay réunion mais moyens yi. yoo ko defee moo du. moo tax gis nga man nii tey tey su ma ne woon. tey suñ ñëwoon su kenn benn volonté ñëwoon ni cëpp. Mm-hmm. daal ni Thiénaba TV fukki fanu. Mm-hmm. yi muy accompagner Ibnu Mouhayib ba ci grande mosquée. Mm-hmm. jël naa ko en charge. sponsorisé naa ko. wax ak ñun. la mu mën a ko su néew mu def ko. bu boobaa moyens dina gën a. am na ay opérateur économique yu nekk ci gox bi. usine yaa ngi waaw. am na ñu fiy jaay la leneen leneen te bëgg nañ mu jaral mm-hmm. am na ñoo xam ni it mm-hmm. wax dëgg yàlla même bu fekkoon jaayoo ñu sax waaw maanaam image u Thiénaba mm-hmm. rafet te dëgg la war na leen a jaral ñu ñëw sponsoriser ko ci seen tur waaw ci foofu nag ci laay woowee mbooleem ñi nga xam ne ay opérateur lañ nañu nañu jigee Thiénaba TV ak ñi mel ni moom jéem jéem may leen doole waaw may leen doole quoi dëgg la faaw ñu may leen doole loolu moom loolu ñu wax ko man maa ngi fàttaliku am na benn jour ñu invité ma Africa 7. Mhm. ma dem di waxtaan ak euh, Ibrahima Ndiaye ku xam Thiénaba TV la. waaw mhm. te xamu ko lu dul ci à travers. Euh, média bi média bi mhm. bi ma ko waxee mu ne mu ne ma ñun boo ñu boo leen ñu dimbalee cinq cent mille. dinañ ñëw jël ko loolu moo tee mu ñëw ko 500000. waaw léegi est ce que ñun Thiénaba TV bi koy jël dañ ko jox 500000. xam nga amul. <laughs> waxuma ko nag parce que mm-hmm. damaa toog Thiénaba TV. waaw te moo ko waxee sax c' bon. ndax lii may def ak mm-hmm. di communiquer ngir loolu. dëgg la gratuite la. waaw te bu leen neexoon ni. Mm-hmm. buñ ko fayal duñ ko teg. dëgg la donc dama gëm ni. communauté bu boo xam ne ay ay ay ay vingtaine de mille personnes. dëgg la. affilié wu ji nekk ci àdduna bi partout. waruñuy organiser lu mel ni di symboliser lu bëri ba pare. nga vingtaine ay vingtaine <laughs> ëpp na ko sax waaw mais ma wax pour bañ a juum waaw ay ay waaw yaa yaa moom bari na macha allah abonnement yi moom li wax non waxuma waxuma waxuma abonnement Thiénaba TV ah ok waaw waxuma abonnement Thiénaba TV <laughs> mais li may wax mooy communauté bi ah ok waaw ñi nga xam ne ñoom ñoom moom lii ñuy def nii waaw waruñu seetaan waaw dëgg la ñi nga xam ne ñoo ciy sonn waaw di gàlloo lépp dëgg la faaw ku ci nekk ñun làmbu sa poos as lëf mhm. def ko ci mhm. ngir au moins alléger alléger dëgg la jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ dund mhm. yéen noonu ak ñeneen ngeen ko bokkal ci kër gi te ñuy yëngatu ci média dëgg la waaye itam mhm. ñi nga xam ne dañ leen di déplacé ñu jógee fa sori certes mhm. ñoo bokk liggéey bi mhm. mais ñoom dañuy toggoo coono seen gasoil toggoo coono buñ ñëwee war na ñoo xewlu war a def lépp te yenn saay moyens ne suivent pas beneen bi ci des itam buñ koy organiser sonorisation yenn saay dañu am problème bi waaw te loolu alal xaalis su koy def. jot naa ni ñun liñ ci war a am rek mooy organiser. Mm-hmm. mais financement bi moom mm-hmm. communauté bi moo ko euh, mais est-ce que euh, démarche yi euh, bu passé tamit appel bi nga def nii ci Thiénaba TV. waaw démarche yi jëm ci ñi nga xamee ne am nañ yaakaar ne war nañoo mën a def financement. Mm-hmm. est-ce que démarche yooyu aussi ñu ngi koy matale. en tout cas ñun démarche démarche yi ñu def rek mooy. dañ koy lancé dem ci xalif bi wax ak moom. dem ci porte-parole wax ak moom. coordinateur wax ak moom. après nag ñun li ñu am ci moyen kis néew. ñu dajale ko mm-hmm. fu mu mën a yegg ñoo xam ne fii la mën a yegg ñun daal fii lañ tollagu beneen biñ ci ajouté tuuti mm-hmm. mooy am na benn ima benn montage bu ñu def mm-hmm. lancé ci benn cagnotte maanaam demandé ko ci bëgg a contribuer nga contribuer jaar ci ay niveau numéro yoo xamante ni bu la neexee nga dugal sa mhm. mais daal li ñu a wax mooy mhm. loolu moom mhm. bu ñu bëggee affaire bi gën am jëmm ji mu war a fokk mooy am faaw faaw ay mooy am ah, mu nekk lu am solo message boo xam ni mu ngi jógee ci euh, sëriñ Mouhamed Seck euh, Mati di coordonnateur journée boobu euh, wax na ko ci waxam ni Thiénaba TV yàgg na leen a accompagner depuis ca commencement ba macha ba léegi nii waaye ci noonu mu ko waxee rek noonu lañ leen di accompagner mm-hmm. euh, li tax nag ma dolli ci li mu ci dolli ci kàddoom mm-hmm. mooy euh, bëgg mu gën a baax mm-hmm. euh, lu tax ma bëgg mu gën a baax mooy xam naa ni waxtaan nañ ci am na am nañu ay idée mais nit mënta def lu lu ëpp ay moyen waaw nit mënta def lu ëpp ay moyen donc bu fekkoon ni moyen lu mu tuuti tuuti mu néew néew am na teg loxo Euh, bu boobaa euh, image yooyu parce que yenn saa yi nit seetaan sax daan ne waaw seen image yu direct bi ngeen def nangam ak nangam mais yooyu yëpp moyen moo koy indi moyen moo koy indi nga mën a euh, defaraat yenn yi ba nga xam ni ki nekk bitim réew bu ko seetaanee day am mbégte kon appel baa ngi noonu ñu koy lancé au nom de l'équipe de Thiénaba TV mën naa wax sax au nom de penc mi ndax penc mi moo tax Thiénaba TV di liggéey bu ko defee rek ku teg loxo daal image yi dina gën a leer ku teg loxo liggéey bi dina gën a rafet Euh, ku teg loxo tamit macha allah même boo nekkul canaba euh, incha allah dinañ def tous les moyens possibles ba dara du la raw comme niñ ko daan defee euh, dañ naa wax naan ku yokk cere yokku ñeex waaw macha allah yal na yàlla bàyyi ñu fi te ñu tal ko mhm. ci barke yonent bi sëñ bi yaakaar naa ni ñu ngi ci cat bi dañ lay delloo kàddu gi bu ko defee rek mhm. nga joxe message bu mujj bi mhm. tàggoo wale ñu yëkkati jataay bi xanaa di gën a sant bu baax di gërëm Thiénaba TV ak mboolem ñu doon teewlu carrément monsieur le maire Talla Diagne mhm. di ko di ko sàkku ci moom mhm. ci turu mbooloo mi mhm. na na na na dugal loxoom ci ci liggéey bi monsieur Abdou Ñing ci coordinateur coordinateur waaw am na ay promesses yu ñu jox ñu ngi ci am yaakaar waaye ñu ngi koy ñaan moom tamit nu mu gën a doxal dugal liggéey bi donte liñ ko saturé na mais na ci dugal loxoom euh, sëriñ Xaadim euh, Gueye comme comme euh, action acteur politique la mi ngi ci gox bi te cana ba mm-hmm. intéressé na la moom itam ñi ngi koy ñaan mu mu jël lu lu am solo dugal ci loxo dugal ci loxo waaw <laughs> ñi ngi koy xaar xaadim da naa dama naan bàyyi leen ko Sëriñ <laughs> Modou rek xaadim ñi ngi xaar loolu <laughs> ndaka noonu it nag sama sama sama sama xaritu bopp mm-hmm. Ibrahima xalifa Ndiaye Ibrahima Khalifa Ndiaye cana ba moom tamit jàmbaar cana horizon bon moom bu fi nekkoon daa war a bokk ci organisateurs yi effectivement donc moom tamit ñu ngi moom tam jàmbaar mu ñëw dugal ci mbir jàmbaar la na gën a dolli nag dégg nga mhm. maa lay xaar xalifa <laughs> ak góora waaw góora Ndiaye moom tamit ñu ngi lay xaar ak mbooleem ñi ngeen ko seqal Moussa Ndongo ak ñi ngeen seqal lang ñëpp jàmbaar la ñu ngi leen jaan waaw yéen yëpp ñu ngi di ñi ngi ñaan ngeen ñëw waaye présence am moo am solo góora waaw honorable député mhm, mhm. Omar Sy Omar Sy moom itam ñu ngi koy lancer appel. Mhm. ni ko lii moom na ci dugal loxo. Mhm. ba ba dootuñu fàtte ba dootuñu ko fàtteeti. Mhm. ak mboolem. ñi Omar si boo koy woo tenkoo ko fexe ba dégtal ko Baye Diop rek sëñ bay Diop. <laughs> yaakaar naa mooy mën a yomb de <laughs> donc donc kon dénk nañ ko sëñ Baye Diop na fexe ba loolu am <laughs> mu ngi ak ñëpp rek li ma bëgg wax rek mooy ñoom sax baax nañ gaa waaye ñun ay moyens mu ngi ci ñun ñëpp ku ci nekk ñaar téeméer bu ko xeeb waaw waaw ñeenti téeméer bu ko xeeb ma ne bu yàggee dina ñooñu noonu lu baax lañ bëgg de li ñuy def euh, ci maanaam seen compte lay dugg. bien sûr maanaam li ma bëgg wax mooy. Mhm. yow fi mu nekk nii woote boobu. Mhm. Euh, njàmb nga da ca war a ñëw. waaw njàmb baa njàmb da ca war a ñëw da ca man mii dama cee war a ñëw. waaw ak mboolem ku ñuy seetaan. ak ñi ñuy seetaan yëpp maanaam li bu kenn xeeb sax téeméer bi nga yore. ngir mu dugg foofu même jigéen ñi nekk ci biir kër yi. waaw di ko wétalikoo ci Thiénaba TV. waaw wala di ko wétalikoo ci rajo yi. Mhm. ñoom itam na nga xam ne seen walla mi ngi ci biir. Euh, sëñ Mouhamed. dama am benn philosophie. sama philosophie mooy mbir bu fekkee ni boo déggee ñu xarab ko. Hmm. sa xol jóg. waaw bu ñuy wootee ci mbaax war nga caa def. da ngaa war a teel a dem. waaw <laughs> yow am nga culture. waaw liggéey. ci mbooloo. ndax yenn saa dinga di nga recréer di nga gérer détail yoo xam ne. waaw ñi nekk ci biir duñ ko xam. déedéet mais <laughs> ala kulli xaal nañ ñëpp jàpp rek. ku ci nekk na nga man na nga mane. yéemuñu dara ku hmm. amul itam te am yéene ñoo xam ne yéene la am. waaw ku amul itam te mën a teew. jëmmal mbooloo ma nga hmm. def ko. nu nit mën a rek na ko def kon ñi ngi gërëm mhm. di sant ñi ñu àndal ci liggéey bi mhm. ak mbooleem ñi nga xam ñi ngi ñu ci accompagner ñëpp mhm. wasalaamaaleykum macha allah macha mu nekk lu am solo kon euh, mbir maa ngi noonu muy euh, ubbite euh, fukki fan yi gàmmu gi ñu war koo def premier programme ouverture bi samedi le 16 septembre 2023 ci ndigalal Baye seriñ Assane Seck ñu war koo def ci grande mosquée seriñ Mohamed wax na programme bi ni muy deme fukki fan yëpp macha allah ba ca ca Pandaw ja nga xam ni samedi le le 25 septembre. Euh, moom la ñuy def euh, tëj la euh, foofu ci grande mosquée bu Canaba bu ko defee rek daal di lu ca suba sa ñu dem muy guddi gàmm. waaw allah yàlla di bëree sant ak gërëm. waaw Serigne Ndiouga Mbengue. waaw jàpp na ci liggéey bi. macha am na yu ñu doon waxtaanee. di wax mhm. waxtaan coordinateur. ci mhm. ay parrainage yu ñu doon wax noonu. waaw mais daanaka retour bi ñu ci am dafa yeex. waaw te day laaj effort yooyu. Mhm. moo tax ñu teg ko suuf waaye xëy na déwén dinañ ko gën a dinañ ci gën a xalaat ci côté. incha allah mu nekk lu solo kon ñuy jaajëfal képp koo xam ne rek jàpp na ci Euh, damay wax ne ku ñaq baax na euh, ku ñuqi baax na ku ñukki-ñukki euh, baax na mooy ku ku làmb sa poos def ci baax na ku ko mënul tamit di man di teew ñëw dara jaal mbir mi am na solo waaye ku mënul loolu yëpp tamit boo ñaanee tamit nga ñaan rek yàlla nangu ñaan yañ fay ñaan ak liñ ciy sàkku loolu yëpp tamit am na solo kon Thiénaba TV noonu lay doxe ak rek ba incha allah mu nekk programme avant gàmmu bu ñu demee ba ci gàmmu ga tamit ñu ànd ak yéen après gàmmu tamit noonu la ñuy ànd ak euh, mu nekk loo xam ni lu am am solo la kon ñu ngi dalaloon Mouhamed euh, Serigne Mouhamed Seck mi nga xam ne tey moo fi teewaloon euh, mbooloo moomu nga xam ni ñoom ñooy organiser wàllu fukki fan yi Ibnu Mouhayib ba ca grande mosquée bu ba di jaajëfal nag téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun boobu boobu ba léegi Pape Serigne Sarr nag moo àndoon ak ñun ci caméra bi. monsieur Babacar Ndiaye Euh, waaw Babacar Ndiaye monsieur Babacar Ndiaye euh, yaa ngi koy fàttali euh, lim liñ naan lim dafa jafe ku lim desal kon ñi mu lim rek muy mm. monsieur le maire Talla Diagne mm. monsieur Omar Sy honorable mm. député honorable député Mandiaye Kébé macha allah ba ca soxna Fat seen honorable député au conseil des collectivités territoriales nekk fële ca ca ca moom tam ñu koy woo ak maire yi ak maire u Ndiéyène Sarax maire u Ngoundiane nga xam ni ay dëkkandoo lañ Euh, ba ca ña nga xamee ni par exemple moom mooy président Abdou Gningue di coordonnateur bi euh, El Hadj Ngagne Demba Sarr euh, mi nga xam ne mooy porte parole xalifa Ibrahima Ndiaye Thiénaba Horizon Khadim Gueye macha allah politicien Babacar Ndiaye góor Ndiaye macha allah Moussa Ndongo ñi nga xam ni ba ca Serigne Ndiaga Ndiaga Ndiaga Diop. Mhm. dëkk Thiénaba Gare. Mhm. macha allah ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di woo ci li nga xamee ni macha allah mooy fukki fan yu gàmm yi. yi ñuy def ci euh, grande mosquée bu cana ba ak képp koo xam ni association féminine la yore muy mbootaay euh, muy daayira euh, lu mu di yore rek ak lu rôle bu mu ci war a mën jouer ba ca ASC jeunesse bi lu ñu ci mën a jouer rek ñoom impliqué nañ leen ci li nga xamee ni moom mooy mbir mi ñu ngi àndoon nag ak Pape Serigne Sarr Alpha Ibrahima Sarr ci régie bi Moussa Ndiame Gueye moo daraloon suñu mbokk suñu xarit Serigne Mohamed Seck Mati coordonnateur organisation boobu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 borom daara ji xéewal voyage ku ne dégg na borom daara ji xéewal voyage voyager leen ci confort en toute quiétude àndandook kër borom daara ji xéewal voyage da nga bëgg dem Chine dañu lay taxawu gunge la nga bëgg dem États-Unis ñu gunge la nga bëgg dem Dubaï ñu taxawu la nga bëgg dem France ñu taxawu la partout en Europe ñu taxawula en Asie naka noonu dans le reste du monde kër borom daara ji xéewal voyage ouvre ses portes pour vos billets d'avion attestation de voyage assurance voyage réservation de voiture candidature préinscription à l'étranger pour les étudiants ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen woo leen ñu ñu ngi nekk fii ci Médina rue 29 angle 30 wala 33 822 98 97 wala 77 767 29 16 wala 77 749 37 37 borom daara ji xéwal voyage voyager dans le confort et la quiétude ngeen dem tukki ñëw ñun ñoo taxaw pour gunge leen du ñu leen bàyyil dara lépp loo xam ni dafa affaire ci seen voyage dañu leen koy toppatool ndax ngeen